allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman alhamdulillahi alladi axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala nu ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam Rewmi TV Rewmi FM 97 delsiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtu bi ci waxtaanu fajar ñu fas yéene wéttalanteeg mbokk yi foo leen munti nekk ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci topp ba ngeen ñuy topp ci jamono ji ci waxtu wi ñoo ngi ñaan buur bi tabaraka wa taala yal ñu yàlla boole defal dégg topp mbokk yi na ngi fàttaliku suñu waxtaan ba mujj woon bañ doon am ak yéen ñu ngi taxawoon ci birrul waalidayn buñ ne birrul walidayn xanaa du mooy la nga xamante ne moom la doom wara a taxawee taxawaay bi nga xamante ne moom la ko borom bi tabaraka wa taala ne noon nga war a taxawee say ñaari wayjuri taxawaay boobu yàlla suñu borom tabaraka wa taala joxoñal doom bi ne noon nga war a taxawee yéen a ngi fàttaliku ba léegi toftal nañ ci yeneen jikko yoo xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama baaxee askan bi képp ku bëgg mucc nooy def yéen a ngi fàttaliku ba léegi àndoon nañu ak yéen ci la nga xamante ne mooy jamono ji ñu toll ni ana kan moo gën a amal nit ñi njariñ ba tax na waxtaan ya jiitu loolu ñu doon waxtaan ak yéen tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa ak ci coobareem bëgg nañu wéyandik yen ci waxtaan bi fii jaar ci Rewmi FM 97.5 beneen buntu bu bees bañ a nar ci buntu bi mooy inchaa allahu tabaraka wa ta'ala bu bees bi nga xamante ne moom lañ fas yéene ànd ak yéen am ngeen ne boroom xam-xam ju mag jooju di xasanul basri rahimahullah daanoon na baaxee askan bi nasixa laaye biir ba toll ni mu la yow doomu aadama bi mu ne la ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baadu daf ne la doomu aadam xamal ne innama anta ayyaamun xamal ne bés ya ngay dundude mooy bés yàlla fi bay bés ya ngay dund mooy sa waxtu yàlla fi tax nekk bés ya ngay dund mooy bés yàlla tax toog fii kon na nga bàyyi xel ne kullama dahaba yawmun na nga xam ne bépp bés ba ñëw jaar jàll mu dem xamal ne zahaba baaduk am na la denc yow am na la wàññeeku ci yow ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa mayar saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain saxaaba yi di yar taabi'uuna yi ñoom ñu daal di fësal nasiha laayee biir yi ni mel jëmm ji ñu di xasanul basri rahimahullah daa bokk ci taabi'uuna yal na leen ñu yàlla fayal ci gën ci fay ba tax na yow doomu aadama bi ndegem bés ya ngay dund fi tax toog moo fi tax a baay war nga jëf ci yooyu jëf joo xamante ne bés yooyu ngay dund du doon bés yu niil waruñoo doon bés yi nga xamante ne day doon bés yay ñëw di jaar di jàll di dem te doo def dara la lay njëriñ dundu jullit bi war naa ëpp nekkinu jullit bi ci kaw suuf si war naa ëpp loolu tax na yonent bi yàlla yónni sallallahu alayhi wa lépp lu ko yàlla xamal ci lu baax baaxe na ko xeet wi lépp lu ko yàlla xamal lay jegel xeetam ci xiwalu yàlla wax nañ ñu ko lépp luy soril xeetam ci xiwalu yàlla tàbbiloo leen ci merom yàlla daf ñu ko moytandekul ba mu leer nañ amul dara la ko yàlla xamal ci lu baax lu dul wax nañ ñu ko waaye lépp lu ko yàlla xamal ci safaan lay njëriñ jullit bi loolu tamit leeralal nañu ko ba mu leer nañ amul dara la fa lëndëm xanaa kañ li fi nekk mooy ñàkk xam walla def lu wuteeg la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa ba tax na yow jullit bi war nga mën a bàyyi xel sa dund ba ngay dundu bés yooyu ñuy ñëw di jaar di jàll di dem war nga si mën a bàyyi xel la toll ni ana lan ngay nekkee bés yooyu ñuy ñëw di jàll di dem ba tax nañu ñu bëgg leen jàngal xaddis ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee askan wi keroog bu mu gàddaayee jóge ko makka dem medin bu mu àggee discours bu mu njëkk a joxe dafa leeral la nga xamante ni mooy màndargaay jullit waaye aka neexoon suñu jamonoy tey képp kuy joxe diskuur nga jël discours bi ni mel di ko wax ci sa kanamu mbooloo ya ngay wax discours ba ngay yebbi ci kanamu mbooloo bi ak a neexoon nga rootee ko wala nga royee ko ci discours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisu abdullahi bun salaam radiyallahu anhu moo ne an abdullahi bun salaam radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yaa ayyuha nnaas afshu salaama wa at'imu ta'aama wa silul arhaama wa sallu bil layli wannaasu niyam tadxulul jannata bisalaam xadisun saxiix axrajahu albaani fi saxiixu ibnu maaja mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci seeni njaboot yal nañu yàlla mi dégg ak topp ci li xadis bi di tegtal jëlee nañu xadis bi ci saxaabi bu mag di abdullahi bun salaam radiyallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm anna rasulallahi sallallahu alayhi qaal abdullahi bun salaam yan na ko buur yàlla gërëm saxaabi la nee na yenentu bi sallallahu de daf ne yaa ayyuhan naas afshu salaama na ngeen wesaare jàmm seen diggante na ngeen jàmmoo seen biir na ngeen wante jàmm ci seeni xol na ngeen di génne baatu jàmm seeni gémmiñ ñaareel bi mu ne wa atimu taama na ngeen di joxe ñam na kenn ku nekk di layal ca tane ñetteel bi mu ne leen wasilul arham na ngeen jokk mbokk na ngeen taxawee mbokk na ngeen faral mbokk yi kenn ku nekk na taxawee mbokkam ca lam ko tane mu daldi ci teg ne ñeenteel bi mune ne wasilu wasallu bi leyl na ngeen jóg guddi di julli fekk wan naasu niyaam nit yaa ngi nelaw képp ku jikkowu jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal teg ne tadxulul jannata bi salaam dinañ dangeen dugg arjanna ci jàmm kon ñu déggee ci maanaa xadis bi mbokk yi la yonent bi ne yéen nit ñi na ngeen wesaare jàmm seen biir na ngeen jàmmoo ci seen diggante na ku nekk yéene moromam jàmm na ku nekk musal moromam mu bañ koo lor nit ki nag boo ko lorul mooy jàmmal nga ko waaye ñu ci ne tamit boo ko jàmmalut yaa lor kon yonent bi ne na ngeen wesaare jàmm seen biir na wesaare jàmm seen diggante na ku nekk jàmmal moromam na ngeen jàmmoo moo tax mu ne afsu salaama na ngeen wesaare jàmm seen diggante yow mi dëkk ak man mi dëkk ak yow yow mi dëkk ak moom moom mu dëkk ak yow na ngeen jàmmoo bu ngeen jàmmoo rekk ngeen am cofeel seen diggante mu teg si ne ñaareel mu ne wa atimu taama na ngeen di layal na ngeen di servir na ngeen di yekkal képp ku soxla walla ki ngeen tane ki ngeen jàpp ne ko tane ci dund na ngeen yekkalante seeni biir kuy togg na nga suuraale ca mbokk nga togg ba mu ñor nga wooko ko mu ñëw nga yekkal ko wa illaa nga yekkal ko def ko ci ndab yit ko ko loolu yëpp lenn loo xamante ne luy installé jàmm ci diggante jullit ñi sallallahu alayhi wa sallam léegi ngir mu jekkal pencum jullit ñi ñoŋal ko defar ko ba mu jekk mu daldi ñu baaxe mu ne ñu wasilul arham na jokk mbokk bu leen di wax luy dagg mbokk bu leen di wax luy xajamal mbokkoo bi bu leen di wax luy doyadal mbokkoo bi bu leen di jëf lépp luy wat reenu mbokkoo bi ci seen diggante kon na ngeen suuxat mbokkoo bi na ngeen mbokkoo bi na ngeen ko dundal bu ko rey bu mu faatu na ngeen ko jëmbat ngeen dundal ko mbokkoo bi gën a naat ngeen jokk mbokk ñeenteel bi mu ne wa sallu bi layl nangeen ngeen jóg guddi di julli di toroxlu wecci leen seeni lal sijaada wecci leen seeni lal ci taxawaay ba ngeen di taxaw jàkkaarloog seen boroom ci guddi fekk wan naasu niyaam nit yaa ngi nelaw nit ñi ñu ngi ci seeni bànneex yonent bi ne képp ko dëkkee nii képp ku nekkee nii ah di nga dugg àjjana ci jàmm kon bu fekkee ne lii day doon sabab pour doomu aadama bi wala pour jullit bi tàbbi ci kër xiwal ba ñu naan àjjana moo ne jar na ko de waaw waaw fekkee ne lii de képp ku ko nekke dina doon sabab pour nga tàbbi àjjana dama ne jar na ko waaw jar na ko de jar moos ba tax na inchaa allah bi iznillahi subhaanahu wa taala dinañu ànd ak yéen ba léegi andil leen beneen buntu bi nga xamante ne moom lañ bëgg a sof ci bunt bi inchaa allahu subhaanahu wa taala mbokk yi léegi ñu leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak Rewmi FM 97.5 xam ngeen ne ba léegi suñu yonent bi di ar rasulul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee la nga xamante ne moom lañ leen bëgg a dégtal ni mu doon xadis bi nga xamante ne moo lamboo njëriñ bi nga xamante ne foo ko natt weesu na ko mbokk yi bu ñu demee xool ci suñu beneen buntu dinañ fa fekk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ñuy moytandikuloo la nga xamante ne mooy ñaaw njort ñaaw njort da loo xamante ne julit bi war na sori lool julit bi war na kaa bàyyi xel ba mu bañ a tàbbi ca la nga xamante ne muy ñaaw njort ndax ñaaw njort sallallahu alayhi wa sallam daf ne mooy la nga xamante ne bokk na ci li gën a màgg ci wax lu du dégg waaw ñaaw njort da di loo xamante ne bokk na ci li gën a màgg wala li gën a jege ci wax lu du dégg waaw bu ñu demee xool ca alquraanul karim dinañ fa fekk borom bi tabaraka wa taala mu duñu baaxee ci suuratul xujuraat mu neñu yaa ayyuha alladina aamanu ijtanibu kathiran min azan inna ba'du zanni ism borom bi tabaraka wa taala moy avertir doomu aadama bi rawatina yow jullit bi rawatina yow mi nga xamante ne danga ne yaa ngi ci daairatul iman borom bi tabaraka wa taala mu ngi nii di la avertir ne la ma ngi lay moytandikuloo na nga sori la nga xamante ne mooy njort buur bi tabaraka wa ba léegi mu ngi lay avertir di la wax ne inna baada zanni isma xam leen lenn ci njortu de fàggutee fu bàkkaar la ba jullit bi di fàggul ci jëmmam moo ne nit yaa ngi faggul seen bopp yiw yoo faggul sa bopp bàkkaar ñàkk xam moo la ko yóbbee walla lan moo la ko yóbbee ba tax na yàlla suñu boroom tabaraka wa taala mooy buur bi xam la doomu aadama bi di dundee moo gën a xam doomu aadama boppam ba tax na mu di la awertir nela la yéen ñi gëm yàlla na ngeen sore la nga xamante ne ñaw njort nee na ci njortu de bàkkaar ba nit ki di faggul boppam la foog naa defe naa ku dem xëy na je pense yooyu noonu nga nekk di ko wax ci nit ki te dara wóoru la la mu nekkee xamoo ci dara bi dara booloo jeex lu dut nga teg ko ci rekk foog naa defe naa xëy na yooyu jullit bi daka war a mën jombale boppam jullit bi daka war a mën a jombale boppam ba tax na borom bi tabaraka wa taala mu ñuy avertir nañu yéen ñi gom yàlla yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla yàlla bu demee bay woo jullit bi mu daldi la tabbal étiquettu iman parce que daa bëgg ci yow yiw yiw boobu la mën a bëggal nag moo tax danga nga war a dem wuyu woote bi boo demee wuyu woote bala yàlla woo ci alquran nga déglu lam lay wax boo déggee lim lay wax na nga takk lang fa jële nga pare pour jëf ko moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ñëpp babbee ko dem wuyu léegi message bi mooy borom bi daf ne igi tani bu sori leen jitani bu na sore lan la ñuy sore kathiran min addan lu gën a bëri ci njort sore leen ko bàyyi leen ko bu leen di njortu njort yu bëri neena nag inna baada dan xam leen ne leen ci njortu yi de ismun faggute fu bàkkaar ba nit ki di faggul boppam la nit yaa ngi faggu yiw yow yaa ngi faggul sa bopp bàkkaar lu la ko yóbbee njortu bu ñaaw ba ngay njort ci nit ñi njortu bu ñaaw ba nga am ci nit ñi est jar na ko wallahi jaru ko kon del rafet njort ci nit ñi su ko defee nga mucc su ko defee loolu képp ku koy dund seytaane ma la koy loo yonent baa ngi nii sallallahu alayhi wa sallam baaxee na la ne la tegtal bi ma la bëgg a tegtal nii boo ci tegee sa tànk nga installé ko ci sa dund amaana seytaane balay njortuloo njort yu ñaaw yu ni mel di nga mucc ci seytaane boobu fi ma la tegtal nii yonent bi neena na ku ko jëfe di nga mucc ci seytaane balay njortuloo njortu yu ñaaw ya ngay njortu ci nit ñi tegtal bi képp ko ko bëgg a xam danga ñu bàyyi xel ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar ba fiy jaar ci waxtu wi mbokk yi nañ leen ànd topp tegtal bu ñu yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku tegtaloo lamala la bëgg sant nii di mucc ci seytaane balay njortuloo njort bu ñaaw qaala rasulullahi alayhi wa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira yanfiru min al bayt alladi tuqra'u fiihi suratul baqara mbokk yi yàlla yónni ci xel bi di ar rasulul mustapha salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nee na laa tajcaluu buyuutakum maqaabira bu leen def seen niig yi ni bàmmeel inna sheytaan xam leen ne sheytaane de yanfiru min al bayt day daw bañ a dugg ci néeg boo xamante ne alladi tuqra'u fihi suratul baqara yonent bi nee na day daw néeg ba nga xamante ne dinañ fa jàng suratul baqara ñu déggee ci maana hadis bi sallallahu alayhi wa boo buggee miine sa néeg ngir seytaane bañ faa dugg ak élément ngir seytaane bañ a am palaat ci sa néeg ak soldaaraam yi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen di def néeg ni bàmmeel tëdd rek moo la fay tax dugg tëdd rekk nga am ak sa néeg du naafila du jàng alquran du dara yow daal tëdd nga nelaw nga yeew nga sol nga sa yére sol nga say dàll génn nga yonent bi ne déedéet bu kenn def ni gam ni bàmmel tidd rek moo la fay tax dugg déedéet yonent bi ne xam leen ni inna seytaane naka seytaane yan firru dina daw minal bayti lidi ci néeg bi nga xamante ne tuqra'u fiihi suratul baqara dañ fay jàng suratul baqara amaana ki mel ni man danaan man de mënuma suratul baqara naam mënoo suratul baqara enregistré ko ci sa téléphone nga teg son bi ci sa néeg te nga géem a góor-góorlu di ko jàng ndax kooku nga enregistré son nit la ni yow daa góor-góorlu yàlla jàppandalal ko mu mun suratul baqara boo ko defee mën ko munoo ko jëlal son sootul baqara nga di ko déglu moo gën leneen lu dut loolu nga di ko teg sa néeg musique moom waxatuñu ko kon noonu la ñuy déggee maana xadis bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa tajcalu buyutakum maqaabira bu leen def seen néeg yi ni bàmmeel tëdd rekk moo leen fay tax a dugg tëdd rek ngeen am soxla ak seeni néeg déedéet bu leen def noonu mu ne ñu inna cheytaan xam leen ne naka cheytaane de yanfirru min al bayt alladi day daw ci néeg bi nga xamante ne dañ fay jàng suuratul baqara suuratul baqara fépp fu ñu koy jàng yonent bi nee na cheytaane day daw bere boobu ndax bërëb boobu dañ koy miine ak ay malaaka yoo nga xamante ne dañ koy lor moom moom ak gàngooraam kon noonu lañuy ñuy déggee maana xadis bi mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot waxtaan bi jeexagul dañoo yégg fu ñu war a yëkkati jotaay bi ñu jébbal bërëb bi ñu war a yéggee xibaar bi ci nasaraan ñu di leen di ñaanal yàlla yal nañu yàlla may dégg ak topp nasalullah jalla waala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wa wulaata umuurina allahuma ixfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan aquulu maa tasmacuun baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alcaziim wa nafani illahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahi wa barakatuhu ahi wa barakatuhu ahi wa